chers téléspectateurs de la 7TV nuyu nañ leen amaat mbégte ak contenté jan ak yéen ci seen émission avocat émission bi nga xam ne moom la ñuy def tous les semaines di waxtaanee les question juridiques les cas mais aussi l' actualité de manière générale tey nag ñu bëgg ñëw ci benn cas benn situation boo xam ne vraiment les bailleurs ñu ngi koy ñu ngi koy dund maanaam cherté li nga xam ne mooy les factures d'eau mën nañ ci sax boole des factures d'électricité parce que gis nañ fan yi vraiment donc mu am des problèmes rapport ak li nga xam ne mooy facture d'eau ak facture yi ak les citoyens sénégalais entre ñi nga xam ne ñoom ñoo koy liggéey maanaam la SDE ak li nga xam ne mooy la Sénélec tey nag ñu ci dalal ki nga xam ne mooy Bakary Amidou Cissé nga xam ne moom la ñu dalal nga xam ne membre ABS la association des bailleurs loueurs mu yàgg xeex li ni mel yàgg ko dénoncé tey nag ñu jël la bëgg waxtaan ak yow ci li nga xam ne mooy cas bi mel maanaam la cherté des factures d'eau nuyu nañ la bàyyi la nga nuyu ak nos téléspectateurs. Amadou mhm. la naan asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi nuyu bépp téléspectateur 7TV euh, di leen wax métté bu rëy la ñu am ñëw toogee euh, di wax si affaire wu ndox parce que combat boo xamante ne bu ñu yàgg ma ne la depuis des années et des années mhm. bon donc c'est euh, avec un grand plaisir di mhm. ñëw toog ak yéen mhm. di delluwaat di wax si lii di ñaan ay doomu aadama la rek baada auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mhm. ñu ngi koy bëgg a tàmbale si jàmm ak salaam lu jub si kàddu bi ñu xam ne yàlla suñu borom la du mhm. doon njuumte tamit ñu xam ne doomu aadama lañ doomu aadama motoon mhm. mais suñu objectif mooy ñëw wax xew-xew bu nekk ci wàllu ndox bi. bu nekk ci wàllu ndox bi ci la ñuy dugg directement Bakary mhm. cherté bi boobu ba tey yéen a ngi koy yéen a ngi koy kaas mais de l'autre côté aussi ñoom ñi ngi naan ñu ngi def seen liggéey normalement cest à li ngeen di wax cest à bi dafa cher facture yi dafa cher mais ñoom de l'autre côté nee nañ les Sénégalais ñoo ko consommé lan la ñu mën a comprendre cette contradiction entre yéen ak li nga xam ne mooy la société bi nga xam ne mooy gérer ndox mi. bon daw sa question bi bu ma permettre d'abord si nom de association bi laay wax. Mhm. ma présenter association bi. d'abord mhm. après ma ñëw tontu si sa question. allez-y ABS moo fi tax a toog. Mhm. bu leen a ABS ABS mooy lan mooy association bi nga xamante ne depuis bu ñu defee wàññite bu njëkk ba. la borom kër yi dajaloo pour euh, samp benn association. parce que wàññite bu njëkk bi boo ko am mooy wàññite location bu njëkk bi. voilà 2014. parce que lu ko waral euh, parce que dañoo xooloon ne borom kër yi vraiment amuñu woon mbootaay bu leen dajale. pour ñuy ñuy liggéeyandoo. léegi depuis loolu la ñuy sas association association bi la ko tax a boole kër <laughs> mooy d'abord nan la ñuy mën a amee suuf nu mu gën a yombee. parce que suuf bu yombee la lu si des mun a yomb. dëgg la boo jógee suuf nga ñëw si matériel de construction. loolu tamit gis nañ ne ampleur bu mu jël nu mu gën a méttee si dëkk bi. bon boo loolu weesoo boo xasee ba def sa kër nag après loo si loo si war a boole muy courant muy ndox après nga door a loué boo loué tamit. xam nga ne kuy xas ba luy moom dina am ay jafe-jafe. des fois nga gis ku fay nga gis ku dul fay. léegi nag association bi en loolu mooy taxawaayam. loolu mooy taxawaayam voilà. Mhm. loolu laa bëggoon wax si wàllu présentation association bi ma tàmbale si di nuyu suñu président muy monsieur Ibrahima Ndiaye. Mhm. du nuyu tous les membres de l' association. voilà parce que moom moo tàmbali si ëpp si débat locatif bi di dem. Mhm. bon comme wàllu ndox bi moom c' est pàcc bu ñu yàgg xeex la. moo tax ñu jégalal ma. pàcc boobu ma moom laay moom lañ ñëwaat kon boog bu ñu déggee ABS donc benn association boo xam dafa regrouper les bailleurs pour xeex li nga xam ne mooy seen i mooy seen i intérêt donc pour mu yomb ci ñoom bu baax a baax a baax dina ñëwaat ci question d'origine bi c'est-à-dire facture bi cherté bi tey jii nan lañ koy nan lañ koy expliquer en contradiction entre yéen ak ñi nga xam ne mooy la société des des eaux parce que ñu ngi naan ñoom yéen a ko consommé yéen ngeen ne am na benn anomalie boobu ci facture loolu moom yow mun nga demoon naa fi ay plateau yu bëri boo ma permettre ñoom Khalifa Diakhaté plateau néew na plateau télé yu mag yu ma defal. Mhm. ñoom yàgg na leen woon na ñëw ñu toog def débat contradiction mais mosuñu ko nangu. Mhm. mosuñu ko nangu parce que xam nañ lu tax duñu ko nangu. Mhm. parce que xam nañ ne bu ñu toogee ñu li ñuy wax ak ñoom li ñuy wax c'est diamétralement opposé dafa am lu xew si wàllu ndox bi ndox bi d'abord pour commencer nit lu gën a métti mooy tabax kër. boo tabaxee kër des yenn zones suñu yenn clients yi yenn membres yi. dana defar sa kër mën nga toog at lënd laa la wax boo defee demande sa kër du mun a am ndox koo xam ne wax na këram war na si am cent mille deux cent mille ba un million par weer. Mhm. lu gën a métti Sénégal mooy dëkkuwaay mais pour ñu am kon euh, dox si kër gi da ngay daw ba son tey ñu ne la natt bi euh, ku koy war a mesurer moo ñëwul wala bu ñëwee mu mesurer noo xamante ne baaxul. Mhm. bon problème bi dul jeex quoi. déjà loolu mooy problème bu njëkk bi. Mhm. te boo loolu weesoo tamit bu ñëwee xayma tamit yàlla boo tombé zone boo xamante dafa sori ak seen taux fu ñu nekk. Mhm. des fois dina la fay la lu ëpp 500000 ba 1 million. nan la lay wax ñu ne la ëllëg si biir bu dëkkandoo yi ñëwee bu boobaa la lay jéem a remboursé. Mhm. yow en tant que citoyen sénégalais état moo war a fexe tout ba nga am ndox sa kër non ñu ne la non zone bi ndox eggagul yow da ngay fay différence bi pour ndox bi jege la. après yow <laughs> boo amee beneen nit bu ñëw ñu door la remboursé. doog la remboursé loolu mooy premier problème bu gën a rëy. maanaam ci installation bi dafay yéex pour ngeen mën a. jot am mooy installation bi di facturer aussi dafa cher. dafa grand dafa mhm. loolu waxuma facturation consommation mensuelle je parle d' abord pour ndox ñëw sa kër. bu ñu ñëwee mesurer tuyaux yi installation bi ni mu war a demee. Mhm. déjà loolu mooy premier cas bi loolu lu terrible la. Mhm. si ñun bon bu loolu weesoo. te loolu doguma la c'est-à-dire kañ ngeen ko kañ ngeen ko commencé nemmeeku c'est-à-dire ci parce que avant avant société bi nga xam ne moo fi nekk nii actuellement. amoon na beneen société boo xam ne moo fi nekkoon doon gérer ndox bi kañ ngeen à quel moment ngeen euh, ngeen ngeen jot. cette cette lenteur sa mhm. question bi am na solo trop. Mhm. nit da wax te yàlla tax. bu ñu waxee dëgg kese. wallahi à l'époque ba mu nekkee SDE. jafe-jafe ba mu la tudd nii nii mooy si wàllu yéexaayu demande ndox ñëw c'était pas comme ça. loolu ba seen au la lay ñëwee situation bi gën a garaaw lañ seet na léegi boo defee demande vraiment lenteur bu muy jël ñun on n'arrive pas à comprendre lu waral loolu te mënoo am explication bu leer est-ce que du installation cest dañoo nekk société bu bees bu tegu tegu ci bees est-ce que tamit au fur et mesure la ñuy mën a xam exactement ah, nan la ñuy liggéey loolu tamit lu yéemu la quoi changement kay bu amee <laughs> normalement si. continuité la war a doon waaw continuité bu soo def mbir mbir dafa war a gën amélioré wu quoi. mais situation buy empiré lu doon dox doxatul. mais vraiment loolu musiba naaru parce que ñoom bañ bañ ci question bi loolu la saa dañ ne Sen'Eau dafa nekk benn entreprise boo xam ne actuellement dafa nekk en installation des fois c' est un peu compliqué pour ñu mën a réaliser rapidité beeg yooyu noonu ba ñu xamee loolu il fallait qu'ils prennent ba lii lante du am. yow gis loo xam ne mu ngi doon ndox yow nga ñëw ku bees affaire bi gën a am problème loolu mooy bon genre liggéey. loolu c' est un gros c' loolu mooy première mbir bu ñuy dénoncé. d' abord. Mm-hmm. voilà loolu nag bu loolu weesoo. Mm-hmm. mbir bi ni muy yéexee ñu ñëw si wàllu facturation yi. deuxièmement comme ndox mi moo ñu tax a jóg facturation à l' époque euh, ndox mi dèjà dafa am benn problème bu njëkk d' abord mètre cube bi ni ñu koy calculer booy consommé ba vingt na la wax exemple ñu ne la cent franc la. mais ñu ne la bu xasee ba passé vingt mètres cubes bi léegi dalee ko vingt ba ci kaw lu doon jar cent franc léegi itam ñu ne la mille franc lay jar. déjà loolu c' est à dénoncer. Mhm. parce que sa famille sénégalaise bu nekk li ngay consommer en général day ëpp vingt mètres loolu mhm. problème la. Mhm. nga ñëw léegi si wàllu yi factures yi à l' époque deux mille la woon trois mille mais léegi même simple locataire nga dëkk sa jabar kese. Euh, li nga doon fay deux mille trois mille mhm. loolu problème bu garaaw la loolu kenn mënuñu expliquer lu waral loolu. loolu j'ai des tonnes de factures que je pourrais vous montrer après. Mhm. nga xool pàcc boobu say am nga am naa say preuve quoi ma wal la ko. Mhm. loolu lu ñuy dénoncer loolu li ñëpp muy borom kër muy locataire. parce que boo tabaxee sa kër locataire si dëkk yëpp mun nañ nekk ay vingtaine ku waroon fay deux mille trois mille. loolu loolu mooy premier cas bi. beneen cas bu gën a garaaw bu fi nekk ñun borom kër yi loolu moo ñu njëkk a sonal yow da ñëw boo tabaxee sa kër ñu la il faut nga dem uti convention nga dem euh, Sénat bu nekk direction au niveau de Anne. Mm-hmm. bon nga dem def sa demande nga def sa convention boo defee sa convention à l'époque déjà chaque six mois la woon nga doon fay xottu compteur bi. Mm-hmm. xaw ma deux mille francs la woon. léegi ñoom dañoo jékki-jékki sans concertation. jóge 6 mois ñëw si 2 mois. 2 mois léegi chaque 2 mois facture bi bu ñëw day indaale li ñuy naan frais de prestation boo amee convention. Mhm. frais de prestation bi xottu compteur bi ngay fay mu yow borom kër gi. Mhm. même boo dëkkul si kër gi le fait que kër gi dafa am ay compteur xottu compteur bu ne da fay 2500. dëgg problème bu dee 2500 la. fois 4 lu muy doon fois 10 fois 20. mooy xottu compteur bi nga xam moom lañ lay jox. waaw mooy borom mooy locataire bi compteur bu muy installé. Hmm. yow am nga sa compteur principal déjà bi la dugg mooy bu mu njëkkoon doon resté. Hmm. boobu <coughs> bu weesoo léegi kii bi moo si topp quoi compteur divisionnaire yi. waaw mais lu ñu gën a metti ñun borom kër yi. Hmm. ku nekk am nga sa ndox yaa ngi consommé dafa am lu ñuy euh, benn partie boo xamante ne ci facture bi boo ko xoolee fu ñu naan fii la. exemple bi 10 000 la. mais xoolee ma ci kaw fii 4 200. 239 000 nga mhm. bi ñu ne bindal la consommation. mooy consommation nan lañ ma expliquer. Mhm. borom kër gi yow dëkkal si kër gi ñu bëgg la fay la consommation boo xamante yow kenn dëkk fa alors que kër gi ku nekk da am sa compteur divisionnaire. Mhm. boo demee ñu ne la ah xoolal kër gi peut-être dafa am dafa mais boo amee fuite normalement si compteur personnel yi locataire la war a ja la war a la donc ça veut dire excuse la excuse bu amul benn sens la à chaque fois. lu may wax rek nous avons preuve am na benn kër zone de captage fii suñu woto siège association bi. Mhm. dañ ko mos a facturer 500000 mu ñëw. ci ndox. wallaahi consommation kese ñu dem direction comme c' est tout près de nous ñu dem mu ne non non non li erreur la ñu dem ñu rectifier ko. Mhm. ba ñu demee CNO euh, ay emploi ay si boppam dafa ba besoin de donner leur nom ne ah grand lii de lii moo fi nekk mais malheureusement mënuñu si dara lii société bu am doole la dégg naa Suez bu France moo ko yore mhm. léegi ñun mënuñu si dara. voilà donc on va subir ñu ne non non on va pas se laisser faire depuis loolu la ñu commencé dénoncer ça fait des années des années ñuy dénoncer mbir mi. léegi lii mooy problème bu garaaw a garaaw boo xamante ne ñu ne la lii moo gën a garaaw sax problème location problème courant bi li ñuy kaas a kaas problème courant bi eggul fii. donc consommation bu ñuy teg borom kër yi. te borom kër yi nekkuñu si si biir kër yi. Mhm. te alors que locataire bu nekk yaa ngi am sa compteur divisionnaire. Mhm. ñu fa suñu frais de prestation doy na mais consommation bu ñuy felal nekkuñu si kër gi loolu la ñu bëgg mu dakk. loolu ngeen bëgg loolu laa yore fi ay tonu tonu facture. Mhm. mun naa la ko won sa bopp. c'est vrai nga xool boo yaa ngi gis ni deux cent. deux cent et quelques mille. bi ñaata nga gis fi cent et mille. cent quelques mille. Hmm? yaa ngi gisal sa bopp. amul dara dara du ñu xeeb dara quoi. amul amul bii xoolal. Mhm. mu ngi fay prestation 15000 lii ñaata ngay gis fii. 49000 alors que moom il doit payer 0 franc. 0 franc bii xoolal fii 92000 ngay gis fii. Mhm. yu yu yu yu récent yi laa la woon nii quoi. dëgg la bii xoolal bi tamit 68000. Mm-hmm. alors que borom kër gi prestation mu ngi nii mu ngi koy fay. dëgg mm-hmm. xam nga li may wax nii du waxantu xoolal bi quatre-vingt mille la. Mm-hmm. c' est à l' appui. léegi nag. problématique la boo xam ne. voilà lii cent quatre-vingt-onze mille. yéen problème bu indi yéen ngi koy dund. léegi nag lii borom kër gi bu bu bañee fay. yaa gis kër gi yëpp la ñuy ndox. comme ñoom malheureusement dañoo am doole. bu dee euh, téléphonie la mobile la exemple. Mhm. société bëri nañu fi. Mhm. su pas pour faire la pub bu la orange entre guillemets bu defee lu ko neex mun ngaa bàyyi nga dem nga dem free. Mhm. wala nga dem euh, beneen bi mu tudd sax xam expresso. mais ndox ñoom kese ñoo fi nekk loolu neex la def. dëgg la boo fay dañuy ñëw buddi compteur kër gi. yóbbu. tout le monde se retrouve sans eau. mais am na am na am na am nay modalités yoo xam ne ñoom tamit teg nañ ko pour alléger un peu li nga xam ne mooy mooy mooy parce que am na benn paiement paiement allégé boobu noonu c'est-à-dire permettre la personne vraiment mu échelonné ko wala sax des dañuy waxtaan ak li nga xam ne mooy la personne pour trouver benn solution ci li nga xam ne mooy compteur bi aussi. man balaa li ngay wax pour man du solution. Mhm. <laughs> yow balaa nga naan nit kii kaay ma defal la nga échelon la ngay fay ndànk-ndànk. dëgg yow fay loo ma lu ma war a fay kese. d'abord mais boobu mën a teg loo xamante ne sama doole attanu ko. Mhm. nga bëgg ma naan non ay naxaate la nga ne ma non ñëwal nga fay ko ndànk-ndànk loolu mooy man loolu mooy ban genre wax. dëgg la loolu pour man c'est des balaa balaa sax loolu amul benn sens. Mhm. nañu fay loo nit ñi lu ñu war a fay. je vous assure monsieur lu ñuy casse si dëkk bi affaire courant lu xaw si ndox li moo ko gën a garaaw junni yoon yàgg nañ ko dénoncé te délocalisation bi di yem fii nag léegi nag jël ay décisions radicales parce que ndox bi pareegu ma si décisions yi jël loolu naa si à la fin parce que ba décision bu ñu jël beneen mbir bu nekk si ndox bi dama la bëgg a préciser. yaa gis tamit ku ñëw dëkk sa kër mu consommé. Mhm. ah ok yaa jël Amadou nga jël sa convention jël sa contrat nga dem def sa abonnement léegi ñu teg la loo xamante ne mënoo ko. léegi yow dem nga sa yoon nga bàyyi fa bor bi kan moo war a fay. Amadou moo doon abonné kan moo war a fay. nit ki abonné moo war a fay moo war a fay. moo fay dëkk. fay bor koo xamante ne alors que kooku balaa muy dugg dafa am contrat am léppam yow yaay dem fay place bor bi. bor bi yooyu yëpp la ñuy yooyu xoolal ma loolu lu mu gën a grave. problème la man de néew na xanaa koo xamante ne bàyyiwul fa dégâts. Mhm. néew na ma gis koo xamante ne bàyyi na fa dégâts mhm. caution. coche lu mu war a defar dafa bëri. dëgg la peinture. menuiserie plomberie aluminium. ndox courant lu mën la tuddee coche mënul sax defar benn à chaque fois quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf si borom kër gi lay tegu ça veut dire que dañuy yàq yàq ba mu ëpp comme munoo si dara. dèjà nit ki balaa ko génnee bu amee bor sax sa location bu mu am munoo munoo si dara. Hmm. bu génnee bu yóbbu bor bi da nga naan nga bàyyi naa la yàlla. Hmm. mais koo xamante ne nag dafa yàq yow sa appartement dem dem ko encore. plutôt que ça apparemment des noonu donc ça veut dire que caution bi la boo mhm. fois moo ëpp caution bi ñun di ñaan. lu leen di ñu ko defee sa courant parce que affaire bor mu la tudd sànq. dëgg doon dund si wàllu courant bi avant da ngay gis ku conseil bi mu dem mu bàyyi fi boru courant. yàlla bu mu ko. Mhm. ñu ngi doon sa contrat carte yi. mais ba contrat carte yi léegi loolu moom mutul nekk. da ngay fay nga chargé. waaw prépayé bi nga fay. loolu la ñuy ñaan ndox bi dégg naa laa wax. ñu dem ci loolu. Gambie bu jege bi Gambie bu ndaw bu ñuy xeeb. dégg naa ndox bi noonu la fa demee. léegi nag ñu ngi leen di naan suralellement ni ñu jàppale defal ñu genre compteur yu mel noonu. nga xamante ne au moins bor moom kenn dootu ko fi bàyyi. mais pré prépayé bi c'est-à-dire bu fekkee courant bi ñu ngi naan metti na trop est-ce que bu ñu ko yóbboo ci ndox bi est-ce du gën a metti tamit lu tax nga mais bu dee ñu ngi nga war a fay. Mhm. je vois pas où est le problème. léegi nag ñun ñoo war a xeex loolu comme ni ñuy xeexee courant bi ñu ne lu ñu def du yoon léegi nag ndox bi tamit bu amee il faut que ñu dénoncé ko. ñu nag loolu la ñaan vraiment nañu si jàppale loolu nag loolu association bi dañu ko ubbi fu ñu nekk ku la contacter yow di nga ñu mun a jox suñu nouvelle te balaa ngaa dem naa la jox suñu adresse site ak suñu numéro téléphone nga jàllale ñu ko képp ku ñu bëgg a contacter. gars yi émission bu ñu dem bu ñu paree ñu ñuy contacter. chaque jour ñu ne ñu lii problème bi dafa jéggi dayoo léegi nag lu ñu décidé dëkk bi ñëpp ko bokk nit ki boor politique boo bëgg a bokk boo mënta bokk la décision ko a bu conséquence constitutionnel demee ba décidé ñoom ñuy tey jii incha allah dina leen dem rencontrer benn par benn. wax leen seen problématique. ñu ne leen comme da ngeen ñëw ngeen ne pour saafara problème askan bi. Mhm. problème bu rëy a rëy ngi nii ñu yëgal leen ko man dama gëm ne suñu pouvoir yi yëngu ñu xew si ndox bi. parce que ñoom <laughs> xaw ma niveau de vie bu ñuy dund moo tax. Mhm. mais bu ñu yëgal lu xew si wàllu ndox mi. vraiment gisuma problème bu gën a garaaw. ndox mi euh, ndox bi que ce location muy courant. Mm-hmm. courant bi boo xamante ne y' a deux mois de cela ba. y' seen seen consoeur bi moom mu bi. Mm-hmm. dëkk bi mu koy coow yow mën nga ñu seede ñun ça fait des années ñu ngi koy coow. peut être ñun euh, du ñu ay pas des hommes des yu ñuy dégg mais yàgg nañu ko dénoncé. yàgg ngeen ko te lu gën a garaaw loolu moo nekk nii lañu bëgg ñu jàppale ñu si quoi. dinaa dinaa ñëw un peu ci ci bi. Mhm. aussi parce que am na benn commission bi nga xam ne moom lañ fi moom lañ fi teg pour mu réguler un peu loyer bi. Mhm. CONAREL bi aussi war ngeen ko mën a war ngeen ko mën a extendre pour mu mën a vraiment dugg aussi tamit ci problématique bi ni mel aussi. li ngay wax noonu ñun suñu président bu ñuy installé CONAREL euh, mhm. euh, woon fii. douze membres coloralais ñun suñu association bi ABS. bokk ngeen si la bokk. Mhm. loolu yàgg nañu ko dénoncé plateau bu ñu dem ñu ngi koy dénoncé colorel tamit wax na leen ne comme colorel dañ fi nekk pour faj jafe-jafe askan bi. Mhm. wax naa leen lii moo gën a garaaw jafe-jafe boo tax xalaat bu askan bi di dund. que ce soit affaire courant bu ñuy wax affaire location bi ñuy wax. Mhm. lii moo ko gën a garaaw te ñu ngi ñaan. te ñu ngi liggéey boole nañ ko si mbir yi ñu war a liggéey président bi wax na ma ko. Mhm. parce que bi installation bi au début on était là mais après dañoo bàyyi euh, membre bu nekk seen président moom mujjee ñoo continuer travaux yi boole nañ ko si mbir yi ñu war a liggéey. boole nañ si mbir yi ñu war a liggéey dinaa ñëwaat a ba ci ci facture parce que sànq yaa ngi ko sànq yaa ngi yaa ngi koy wax c'est-à-dire gisatuñu léegi agent wu li nga xam ne mooy. seen SEN'EAU di def li nga xam ne mooy mooy mooy mooy relevé bi moo tax bëgg naa bëgg naa xam exactement ah ñoom léegi ci estimation rek la ñuy la ñuy pour mën a pour mën a merci sa question boobu tamit mhm. loolu tamit constat bu ñu def la mhm. parce que da ngay xool kër yu bëri waaw léegi agent yi ñëwatuñu dañuy toog fële rek pour man dañuy def estimation rek mhm. envoyé la quoi loolu tamit lu ñuy dénoncé la loolu loolu bu ñu ko doon def sax gis naa yenn réew yi loolu moo fa nekk mais dañuy toog at duñ ñëw comme exemple France comme Sénégal dañoo tàmm lu nekk di jël exemple France. que soit euh, exemple France EDF da toog at bi yëpp ñu bàyyi ñu ne da ngay si at bi la ñëw xool benn yoon li ngay fay mën nañu estimer ñu ne exemple da fay cinquante mille cinquante mille wala vingt mille vingt mille. léegi bu ñu ñëwee at bi bu ñu jëlee relevé bi comme relevé bi gars yi n'arrive pas à être rigoureux là-dessus. Mhm. bu année bi ñu la non année de yow. bon li nga consommé ëpp na wala tuuti na ñu delloo la sa xaalis. mais ñun fii dañ koy jéem def régulièrement ça se fait pas bien bu doon nañu boole loolu tamit ci seen méthode de travail peut-être que dina. ci seen méthode de travail mais mais dégg nañ dégg nañ leen aussi ñu ne dañoo teg benn plateforme digitaliser li nga xam ne mooy mooy secteur bi. ndox bi digitaliser lépp waa ci wàllum ndox mi. est-ce que tamit du léegi ci lool lañ jëm. amul man amul kii xaw euh, kuy yore seen chargé de communication c'est un journaliste. ñu mm-hmm. yàgg nañu ko lancé appel même récemment nekkoon na si plateau kii euh, le gars de Sud FM là qui fait Ndekili là. Mm-hmm. gisoon naa ko si plateau boobu j'ai rappelé directement sur le plateau pour na leen ñun on veut les avoir face à face ñu wax. Ah, mm-hmm. mais ba léegi. nanguwuñu. dinañ leen dinañ leen dinañ leen dinañ leen leen après bu ñu xasee ba déglu émission bi bëgg naa mhm. leen tamit. ñu ngi leen di woo ngi leen di woolu aussi ñoom it ñu am andi seen droit de retour ci li nga xam ne mooy accusation yi nga xam ne association des bailleurs loueurs mi ngi leen koy def ci wàllum factu facturation yi donc ñoom ñu ngi leen di ñu ngi leen di woo pour ñëw vraiment ñu waxtaan ak ñoom vraiment ci problématique bi ni mel maintenant dinaa ñëwaat un peu ci ci benn aspect je pense am ñoom ñoo nga xam ne mooy fayum fayum ndox mi est-ce que aussi loolu tamit ñu ngi koy ñu ngi koy xool bu baax baax d'autant plus que comme li nga wax des fois lu wari aussi seen seen kër euh, nañ ne jàpp vraiment c'est commercial donc est-ce que dugaluñ leen aussi ci tranche boo xam ne tranche boo xam nekkatul tranche sociale mais des tranches euh, commerciales euh, l'association c'est ABS association de mm, bailleurs mm-hmm. quoi léegi nag man lu ma la ko wax tranché location mm-hmm. képp koo xamante ak habitation ça ça n'a jamais été pare ça n'a été pare mhm. loolu c'est loolu loolu la ñu appliqué déjà. est-ce tamit loolu je pense que des plus que di ko di ko éclairer par rapport ak. boo demee di di abonné est-ce que loolu tamit mais mhm. loolu laaj ndax yow habitation wala commercial.